léegi nag euh, ñu dikke leen euh, débat du jour bi nga xamante ne mu ngi aju ci wàllu campagne électorale bi maa ngi fi dalal député El Hadji Malick bokk ci grand parti di porte parole bi Malick Gueye maa ngi lay nuyu. Ousmane maa ngi lay fay di la remercier ci invitation bi. jërëjëf maa ngi fi ak Khalifa Gueye moom mu ngi bokk ci APR nekk directeur stade Amadou Barry bu Guédiawaye Khalifa Gueye maa ngi lay nuyu. Ousmane maa ngi lay fay. maa ngi leen di gërëm te ñu ngeen ñëw wuyu suñu fii ci suñu plateau bi ñu toll ci campagne électorale bi nga xam ne mu ngi wéy. Euh, discours yi nag ñu ngi koy dégg fu ne ak itam sorti bu ci mujj di bu président Abdoulaye Wade moom nee na nag mu ngi taxaw ci lu tax élection du fi am ci 24 février bu fekkente ne itam euh, li mu gis ci loo xamante ne jàpp na ne àndul ak yoon te nekk ci processus électoral bi kenn dindiwu ko fi El Hadj bi nga déggee discours boobu lan la la jox ci xalaat yoo xamante ne jëm na ci élection bi ñu waaj. bon déjà Ousmane maa ngi lay remercier ci invitation bi parce que le président Wade euh, defe naa ni waxam. du tey la koy doog a wax yàgg na ko wax parce que alerté na aussi euh, maanaam le président Macky Sall parce que bu fekkee am na kenn ku ñu jox suñuy suñu xaalis suñuy moyen suñuy impôt euh, jox ko réew mi juróom-ñaari at yi passé Macky Sall la dudd donc problème bu amee ci réew mi moom mooy premier responsable mooy responsable bi sax laay wax parce que li xew nii tey ba mu jël position boo xamante ni mën nañ ko commenter mën nañ ko bañ a commenter parce que ancien président la yàgg na ci politique euh, mooy doyen wu politique u Sénégal am na lu mu doon ci réew mi su demee ba wax wax ji maanaam il faut que aussi ñu xoolaat l'histoire du problème wala le problème de l'histoire ni ko tubaab bi waxee ñu jéem ko cerner ñu xam mbir mi fan la jóge parce que fa mu jógee mooy ñëpp gis nañ ni élection yi président Macky Sall moo tànn candidat yi loolu leer na ci Sénégal yëpp conseil constitutionnel am donc parrainage am assemblée am ñëpp tàccu ah xaw ma permanence la xaw donc ñëpp tàccu ne moom parrainage bi gis ngeen mu génne armée bi ñun en fait def nañ lu ñu man ñun ñëpp lañ jàpp keroog tëj ci kaso bi le 19 avril bloqué génne armée de l'air xaw ma armée de terre génne fépp fii kenn mënta jaar ci bouchon yi Dakar am embouteillage donc loolu moo am mu ñëw ci conseil machine boo xamante ni kenn xamul lu xew ci machine bi kenn xamu ko kenn xamul ni sax yow maanaam kan mooy bës bouton yi ci machine bi pour ñu def ay ay ay ay rejet wala ay doublon kenn xamu ko kenn mënu la ko wax aussi jàpp nañu sax conseil na xamuñu lu nekk ci machine bi. Hmm. ñoom dañuy toog rek ñu ne huit mille huit cent doublon ñu bind huit mille huit cent doublon. Hmm. sept mille six cent rejet ñu bind sept mille six cent rejet ñu nekk ci loolu jógee ci loolu ñu xeex ko aussi parce que malheureusement ou heureusement hmm. mais ñun on est dans une dévolution démocratique du pouvoir mais euh, utuñu ay armes pour xeex. pour jël pouvoir bi am na ay réew yoo xam ni am na ay option yu ñu def am na ay leader politique yu nekk ci yenn réew yi ñoom dañu jël option nem ñun dañuy jël pouvoir bi foqati ko ah dans une voie qui n'est pas orthodoxe wala qui n'est pas démocratique mm-hmm. mais ñun en tant que responsable maanaam option boobu ñun dugguñu ci loolu mm-hmm. moo tax ñun suñu ligne ñu coalition mooy élection yi nii dinañ ci dem duñ ko boycotté mm-hmm. maintenant le président Wade li mu wax nag. Hmm. dafa doon loo xamante ni bon je pense que nit ku ko dégg aussi. Hmm. war nga xam ni bon euh, fa ko teg aussi am na am na am na base am na am na logique politique. parce que hmm. bon. en fait les candidats ont été ont été ont été parce que am na ñu wax ne position Wade boobu nga xam ne dafa ñëw ne du jàppale kenn loolu sax nee nañ kii di Macky Sall la favoriser. loolu bokkaat ci discours boo xam beneen gisin la ci ah. mbir mi yow bi nga ko jàngatee yan xalaat nga ci mën a yëkkati jëm ci askan leeral man jërëjëf Ousmane maa ngi nuyu téléspectateur Walfadjri di wax ne juste euh, Wade li mu wax ñaari jàngat lañ ci mën a am jàngat bi njëkk bi mooy logique la par rapport ak moom démarche am depuis le début que ni il n'a jamais été avec Macky Sall bëggul Macky Sall def lu baax bëggul def leneen waaye nag beneen jàngat bi mooy xool na ba xool xam ni Macky Sall ba ñu démarré boobu ak léegi li mu teg ci ay jéego lépp réussite la lépp mi ngi dellu ci askan bi te beneen bi également mi ngi ci ne moom ci boppam sax xam na ni moom opposition bi fi nekk amul ci ñoom confiance parce que sénégalais yi gëmuñu leen parce que woo nañ fi sénégalais yi à maintes reprises bu ñu génn ci mbedd mi nit ñi faale wuñ leen parce que nit ñi xam nañu li ñu jot a tabax ci réew mi kenn du ko yàq te du ci benn fan bu ñaari fan lañ koy yàq beneen bi mooy c'est pas Macky mooy éliminer candidat wala mooy programmer candidat Macky Sall bu doon euh, dëkk bi tey toll na fu nga xam si wàllu démocratie ak ci ay xarala yu bees yi nit ñi di utiliser moo xam conseil constitutionnel la moo moo xam leneen la te dama jàpp processus électoral bi ni mu bindoo ak fi muy jaar ba mën a yegg ci conseil constitutionnel ba muy joxee décision définitive jàpp naa ni dafay leer ci ñëpp ndaxte boo xoolee amul benn pratiquement Sénégal fu ñuy defee élection te amul reporter bu fa nekk à côté di joxe résultat yi à chaud la koy joxe. ñu am seen i ñu dajale PV yëpp yóbbu tribunal départemental ñu viser yëpp def une validation première étape remonter ba ba muy yéeg ci kaw kon yaakaar naan processus boobu processus bu yomb la beneen bi mooy également mooy euh, euh, système parrainage bi li ci am nii ak le conseil constitutionnel li mu def man dama jàpp ni dañ ko war a féliciter parce que mosuñu gis ki nga xam ne bokkul ci ci wàllu justice ñu jël ko intégré ko muy intervenir dans le dans dans la vérification de ce de ce parrainage. Mm. wax nii lu bees la te nit lu beesee nag dañuy jël ñi nga xam ne am nañ yaakaar te tëddee nañ njaaxaanaay ñu jël leen dugal dugal leen dolli leen ci comme ni juge yi te tëddee njaaxaanaay. Mm. yaakaar naa ne justice sénégalaise ñi fa nekk ak ni leen di formé ak conseil constitutionnel ñi nga xam ni lañ fay tapp ñu fay dem. Mm. def nañ ci wàllu carrière lu nga xam ni amatul dara lu rëy seen mbët prix mënatuñu am privilège bu ëpp li ñu amoon. kon jàpp nañ mbir yi leer na jaar na ci yoon ba nga xam ni ñëpp war nañ ci mën a tënku te di wax ni population sénégalaise comprendre nañ que ni politiciens yi ñenn ñi nga xam ne du ñu bëgg yóbbu askan wi ci yóbbu leen ci beneen beneen dynamique wala ci beneen approche nit ñi jeunes yi comprendre nañ ko te jeunes yi xam nañu avenir réew ñun ñoo ko mën a tabax mais du jaage ne ci mbedd mi ni koy génnee. Khalifa Gaye euh, parce que euh, li nga wax sànq boo ko déggee nga xam ne euh, par exemple ci tànneef ak la nga xam ay machine la ak yeneen ku def loolu yaakaar na am na leneen lu mën loo xamante ne est-ce que ragalu leen arbitrage bi aussi ci wàllu élection bi ñi gagné ñu ne ki gagnéwul wala kee gagné ñu ne wóoluwuñ ci côté boobu amoo tiitange est-ce que ci côté résultat final ba aussi. waaw mais Ousmane c'est-à-dire que xam nga conseil constitutionnel le président du conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. moo indi guerre civile Côte d'Ivoire parce que Ouattara dafa gagné. commission électorale nationale na ne Ouattara gagné na moom le président du conseil constitutionnel mu déclaré ne Gbagbo moo gagné waa guerre civile est ouverte cinq mille morts donc voilà bon réforme yi nga xam ne war nañ ko def ci conseil constitutionnel mooy bu yàlla defee suñu coalition gagné ñii retraité nañ dem retraité ji c'est que on peut plus rester comme ça di jël ay ñoo xam ne dañu retraité di leen dugal ci ay institution bon amatuñu carrière parce que man gis naa benn affaire boo xam ni gis naa ko dans l' administration sénégalaise même surtout dans le ci ci euh, dans le corps judiciaire ñiy rendre les verdicts les moins contestables c' est les jeunes de notre génération magistrale loolu man bon waxuma ni mag ñi bon duñu rendre ay verdicts moins contestables waxuma ni seen i mais les verdicts moins contestables mooy maanaam les magistrats qui ont quarante cinq ans quarante deux ans on les respecte partout ba dans les tribunaux yi ñu nekk bu ñu rendre verdict ah les gens les respectent parce que ku xool affaire bi di nga xool mais éléments yi ñu def mm-hmm. nous on a été écarté le président Gakou a été écarté pour cinq cent parrains cinq cent doublons mm-hmm. la loi l'article cinquante sept Ousmane ne recours am non doublon mënta tere kenn doog candidat loolu article wax sa a été très clair la loi a dit que les doublons peuvent être remplacés à hauteur du minimum requis loolu loi bi wax mais waxul nombre de fois yi ñu dem gis le professeur Babacar Gaye dem société civile dem wax ak juriste ñu ne yéen mën ngeen a remplacer seen i doublon autant de fois ba am 53 000 on était à 52 911 mais ñun doublon lu tax lu tax ñu am ko parce que dañoo ñëw di xëcc warant bi ñu nekk sixième Idrissa Seck bu nekkoon sixième tey peut-être du jàll Malick Gakou mooy jàll bu Sonko nekkoon sixième peut-être du jàll Malick Gakou mooy jàll mais est-ce que position wu rang boo xam dañuy buuxante ah war a woo ñoo defal est-ce que boobu war na démocratique ñu ci écarté un candidat à l'élection présidentielle qui a un projet de société bu sénégalais yi war a déglu mais loolu mooy problème bi hmm. moo tax moo tax moo tax le conseil constitutionnel hmm. en fait mais a raté le rendez-vous hmm. d'entrée pour une seule fois dans l'histoire parce que gis nañ fi aussi ay conseil constitutionnel yi fi validé troisième mandat <laughs> mais gis nañ fi ay conseil loolu moo war a deñ moo tax les réformes fi ñu fi ñu ñuy xaar yéen waaw seen coalition mooy les juges euh, le le parquet le procureur de la République foog ñu xool rapport am ak parquet. mbañante dépend la cour constitutionnelle foog mu ñëw. ah il faut ñu am le mandat de dépôt ñu xool ko dindi ko. Mhm. il faut qu'il y ait un juge ah des libertés boo xamante ne bala ngaa jàpp diw ne dafa sàcc sama portable. Mhm. tëj ko un mois ñu vérifier xam ne sàccul portable bi mu am quelqu'un boo xam day am ay éléments. fiable pour bala ñu ko kii donc yooyu c' est des réformes ne c' est dans le a harmonisé avec le candidat Idrissa Seck euh, leen ci jiñi Khalifa Gueye seen régime bi bëri na te loolu côté boobu ndax c' est fondé c' est pas fondé waaye nan la nit mën a faxase yu mel noonu ci exemple yi nga xam Malick joxe dama jàpp ni am nañu ay ay ay exemple ay firnde yu leer yu wane ni Malick li muy wax tënkuwul ci dara conseil constitutionnel boobu mooy wax ñi wax ni ñi ëpp ñi âgé wala ñu dem troisième âge wala ñu dem retraite ñoo fa nekk dama la koy jox exemple Khalifa Sall il a été condamné au niveau de la grande instance au niveau de l'appel au niveau de la du mm. et cassation mm. kon donc foofu noonu muy wax juge yi nga xam ne Maguette Diop moo dañ ko fa jëlee bëgguma laa ñi nga xam ni ñi nga xam ni jëlee ko jéemal a gëstu loolu ñi nga xam ni tey Malick Lamour ki ñi nga xam ni tey mm. ñooñu lay wax la nouvelle génération ñoom ñoo ko condamné kon pour wax ni euh, indépendance justice sénégalaise ak ak euh, euh, ni mu tudd taxawaay bi nga xam ne moom la juge war a am amul benn complaisance bu nga xam ne mën nañ ko ci constater kon nag conseil constitutionnel la mu def man dama jàpp ni argumentaire boobu muy wax ni la président Malick Gakou moom la ñu ko éliminer parce que sixième la nekkoon ça veut que dafa bëgg a wax ni ñu nekkoon premier deuxième ci dépôt yi ñooñu jàll tel parce que booxante bi am nañu. Ah kan moo kan moo kan position la amoon. <laughs> parce que am na ñu nga xamante ne dañu am ñoom dañu am seen électorat mm. xam ne ki njëkk a jàll. Mm-hmm. ki njëkk a jàll le président de la république mm-hmm. am na ay parrainage am yu am na ay doublon ci am na ay dub yu ñu éliminé parce que li ñuy éliminé du nekk ci doublon kese. Mm. du nekk ci doublon parce que. su fekkee ni signature bi conforme ak bi nekk dans le fichier mm. mais duñ koy éliminer mm. su fekkee ni numéro bi ñu bi numéro carte d'identité bi mm. ak numéro carte électeur bi ñu bi ñu nekk ci biir ak ak bi ak bi mu enregistré bokkul mais dañ koy éliminer kon autant d'éléments yi nga xam ne mun nañ ci tënk pour pour wax loolu beneen bi nga xam ni wax na ci sànq mu ci ci ci euh, man dama jàpp ni Ablaye Wade Ablaye Wade opposition bi gën a dànk dànkaafu que président de la République parce que wax na leen ni bu leen Macky gañee gagné ngir yàlla bu leen fi coow parce que xam na ni du seen morom xam na li mu li président de la République def Sénégal te bu ñu gisee campagne ni mu commencé ak tey nit nit ñi répondre à l' du président de la République fu mu dem ni ñu koy accueillir bokkul ak fu ñu ni ñuy accueillir euh, candidat Idrissa Seck bokkul ak fu ñuy dem ak ni nga xam ni actuellement day tey tey dañuy génn ak seen i oto du kenn du leen topp Idrissa bokkul du ñu benn. Idrissa ak euh, programme am am na ci coppite yu bëri war na koo indi assemblée nationale boobu nga nekk tey ji am na ci yu bëri yoo xamante ne nit yàgg nañ koy jot ndax bokk na ci li ñi ngeen yaakaar ne. waaw non xam nga assemblée bi moom dafa nekk tàccoo fa nekk ak lu Macky Sall wax ñu ñu dañ ñenn am na ñenn ñoo xam ne dañuy jéem a xool lan la Macky Sall xalaat bala mu ko wax assemblée sax ñu jéem ko théoriser biir assemblée bi xam nga loolu moo am assemblée nationale. yaa ngi foofu est-ce dina yomb ci yow. non maa ngi fa maa ngi fa mais man sama ñaan bu nangoo du ma fa parce que ñun dañu wax ne bu président Idrissa Seck gagné élection yi te moom la ñuy ñaan assemblée bi xam nga ni dañ koy di dissoudre donc organiser waat beneen assemblée boo xamante ni maanaam proportionnel du amati maanaam day am liste départementale mais day am proportionnel ci départemental bi. askan wa daal maanaam dañ naan Dakar. Mhm. maanaam ñaar fukki député moo fi nekk. Mhm. mais liste yi bu amee fukki list mhm. maanaam ku nekk la nga am ci ay voix bu ma tee benn député ñu jox la benn député bu ma tee ñaar député ñu la ñaar député loolu mooy proportionnel intégral ñu loolu lañ proposé loolu diggee la ndax nit loolu bi ñoom assemblée xam non loolu xam loolu xam loolu xam nga lay indi Ousmane mhm. loolu day indi assemblée boo xamante ni député yi dañuy dañuy xam ne ñoom seen député askan wi lañ mhm. mais assemblée ba la fa nekk xam nga ni <laughs> bon musuma gis depuis sept yi Macky Sall lum ni nañ ko voté assemblée nationale député yi ne duñ ko voté maanaam yow boo jógee di argumenté sax man keroog gis nga bi ma jëlee parole euh, ñu installé pare damaa jël parole di wax ñu may yuuxoo te <laughs> xam nga xam nga di ci loo xamante ni xam nga xamuñu sax man mhm. comprendre nga ci projet pétrole gaz bi ban ban ban ban lecture wala lu ma ci war a wax mais xam nga loolu aussi moo tax dama bëgg wax ne légalité ak légitimité gis nga gis nga Sénégal mhm. bu ñu demul vers vers vers l' équilibre mhm. des pouvoirs ah man dama ko wax wax naa ko dans notre coalition alternance lañ soxla soxlaatul on a besoin d' alternative. Hmm, d' accord waaw alternative boobu nga xam ne ñoom ñu ngi koy. cultiver dama bëggoon ñëw tuuti. programmatique ci li ñu wax ci assemblée nationale. Hmm. man dama jàpp ni euh, le candidat Idrissa Seck li muy wax nii yëpp pour man ñàkk a respecté décision askan wi. parce que askan wi ña nekk assemblée nationale askan wi ñoo leen fa teg teguñu fa seen bopp te jeu boobu ñu tegoon dafa nekkoon ci ay règles yu leer. ñoom ñu ànd ci am ay député ñeneen ñi ànd ci am ay député loolu moo ko def tey moom député mm-hmm. te dama jàpp ni mu sénégalais yi àndu ñoo moom ànd bokku ñoo moom gis-gis mm-hmm. te loolu ñu fa yegg mais juste mu fa bëgg am lu mu bëgg a ñëw mm-hmm. que ni mi ngi tiiteel askan wi ci ne moom demee bu nekkee président de du respecter les institutions du respecter décision yi nga xam ne moom la yeneen institution yi di jël parce que bu nee bu moom bu nekkee président day dem day dem day dem rëbës dem jëli Khalifa Sall te Khalifa Sall yoon teg ko fa. mu am procédure bu mu war a jaar non waxul gracier dañuy koy ah, jëli. il a été très clair. kon nag bu waxee tey nii moom bu nekkee président de la République dana jaay doole ña nekk assemblée nationale war nañoo tiit ci moom. Hmm. wax ni candidat boobu kat ay pexe bu jubee. Hmm. nit ñi ci fitna la ñuy dëkk. kon nag pan candidat bi nga xam ne moo may askan wi. Hmm. jàmm ñu nekk di dund ci jàmm. nekk dans dans une boo xam ni boo xam ni musul am Sénégal. ba ba nga xam ni bi opposition bëggee taal dëkk bi sax. am na fulla yi ba liñ ko dénk muy muy dëkk bi mu taxaw am ci taxawaay boo xam ne dara yëngatuwul mhm. dara tuuruwul war nañ ko mën a jox mun naan deuxième mu naan deuxième ah deuxième bi Malick yaakaar na soo ko lay saf xaw ma c'est que deuxième bi sax ñoom li ñuy def pour pour pour pour am deuxième deuxième jaru ko <laughs> parce que fañ bëgg àll bu wax dëgg yàlla fañ bëgg àgg pour am deuxième mandat mhm. deuxième mandat jaru ko mhm. jàpp nga ne carte gi daal non parce que xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga liy xew maanaam boo njortee tuuti. li mm-hmm. xewoon Walfadjri. Mm-hmm. bi ñëwee euh, gaare 4x4 yu ñuul yooyu bii tenten dañuy ne dañuy tëj rajo bi xam nga sénégalais yi dañoo daw ñëw fii ñu mm-hmm. arrière. parce que jour boobu gis naa fi loo xamante ni tey bu ñu forcé woon lu ne mën na na fa xew. askan wi ñoo génn ñëw taxaw buntu buntu buntu Walfadjri. ne kenn ne bàyyi leen ba ngeen tëj. ba ngeen tëj pour montrer que en fait la dictature du peuple day toll fenn foo xamante ni maanaam. état pouvoir mënu ko antan mënu ko antan lay gërëm di la sant El Hadj gërëm di la sant Khalifa gërëm sant bu baax Modou Fall ma a woon ak Adjaratou Penda Diallo Gueye